Paul Menthe a Sibawou Diandé Paul Menthe l'enfant chéri de la petite Côte ndeysaan Ndiol mi mbërum Mame Mor maa ngi noonu ndeysaan eh, xale la judduwul ndeysaan mbërum Alfoli la ndeysaan président ak lamb Sénégal Paul eh, a ngi noonu commissaire koy sotti li nga xam ne mooy li mystique eh, chef li moo ko indi tamit Paul Menthe tey chef li moo ko indi borom jaareem lii moo tax kay yaa jël sama place chef lii dama kaa woo mu ma tey mbër ah tey mbër laa àndal Paul Menthe yaa jël sama place si oto bi waay Paul a noonu ànd ak ak chef li borom jaareem chef li bu Zambro TV Zambro nee na bàyyil di nangu sama link yi waay <laughs> Paul a ngi noonu xale baa ngi noonu doomu petit kon la ndeysaan doomu mbuur la doomu Paul del jaar côté bi bàyyi leen côté bee ñu di jaar waay ah sa tooma li muy def baaxul ne ko muy jaar nii <laughs> ay waaw waaw Paul jël ko rek jëlal ma xale bi jëlal ma xale bi xale bi xale bi màggagul de bis bu màggee si yàlla perji bi maalaw biir basi ba xale bi màgg nee na biir basi ba xale bi pop waa pop pop pop maa ngi doon may nuru ay Karim Karim président ASC e Kayaafi mbaxal ziyaare naa la